dem fi ay ma gis képp nit ni cundung ci bàmmeelam ak ay dama dem fi ay sëg ma ni cundung ci bàmmeelam ak ay jëfam ma ni koo xam mu jëm bu yeewoo dafay teel jëm ci mbiram jógal jëm ci say mbir te bul toppandoo ñi booleeg teyee nag ngëmee na ngëlam lu nit fa bi yóbbaale bàmmee la koy fajal lor lu du loola fajtil loram te ak jur aku nit ku dee doo ko fab di yóbbaale faggul ci sëg jur ngërëm te mboolem lu nit saytu yàllaa ko fab abal ko te buy dee mu nanguy yëfam liggéeyal ci say yëf te wut cay njariñ lu jar dem ba say yëf te la xoo ca ndam ku xam dëgg loo am balaa jee nga am ca loolee lu dul nammatee jee ndaxam ku am dex akuk jajji tey gas bu wér balaa deq baa jee mu seerum ndoxam deq mooy mel ni ab déeg fooñ dafa taaxum ci nawet ku am dex akuk jajji tey gas bu wér balaa deq baa jee seerum ndoxam te ab deq nag moo di dunyaa yëgal te gas moo di ak jaamu jaamul te gëm wér ak dund ak wërsëg ak kër gu jag du lëf kët ndarab deq yewwul te xam ku deqam ba xëy jeete bënnul përëj mu dëkkew mar ak mer di réccuy jëfam xarit dëgg naanal te gas bënn yow ku def nii bu bis baa mu bég xarit lépp loo saytu jaamoo ko yaw ku def nii bu bis baa mu bég ci jëfam loo ci suñ saa yu jëlee ndigal li ngeen xam ne borom Tuubaa amul morom suñu Abdou Lahad lañ ko jëkk a wax mu ne mi ngi koy seet yam Cheikh mu ne mi seet bu ñu si saa yu dana wér na de jàppale ko rajab kon xamu ko amul ndigal waaye ñun ñu am na ndigal làmbatuwuñu foowuñu kafuñu xamu ko amul ndigal waaye ñun laa si am na ndigal suñu sawto nag moo fi nekkal fii waa kër Xaadimu Rasuul bu fi njëkkee ñëw ci màggal ko njëkk dana yéen waa Serif lii moo gën ci yéen tabaski moo gën ci yéen koré moo gën ci yéen màggal Tuubaa ndax yéen li ngeen am fépp lépp li ngeen am fii ngeen ko jëlee kon moo tax ñii kilifa yii yéene ko ñëpp moo tax ñuy woote woote bi ñuy woote wu ñu ngir bés ñëpp dañu am bés ñu am bés ñu wutal ko ñëpp bëgg ñëpp di ci jëw fii comme ça jàng alxuraan danaa la. dama sir fanaa fi ñetti fan ndax sa alxuraan fët ndax alxuraan barkeel ah ba ma dëkk kon du lu ñu tiitaroo waaye même administration sax boo fi nekkee boo fi ñëwee liggéey fi te te yoonu waa dëkk bi boo fi jógee ci kaw nga jëm ku fi ñëw aajo sa aajo mooy du du lan lu jëm ci kaw rek incha allah du nga jëm ci kaw kon ñu nga si fal ñaan yàlla bu ci kenn gëlum taalibe yàlla bu ci àdduna këf kenn yàlla bu ci àdduna këf kenn ci barke borom Touba ci يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يسر لنا جميع ما قد أصلح قدنا من الدنيا الورى لسخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي ربنا لا تسقنا قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاه تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعسير انت الرب المولى نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين بركي امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين ni امين امين taxaw ak امين امين Mbacke moom امين امين امين امين Abdou Khadim Mbacke امين امين ni dafa teewoon ci fi nga xam ne mooy armée yi bëggoon nañ laaj sëriñ bi lan moo nekkoon sa teewaay ci bis bi tey waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaara di leen balu xaq mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy teewlu fu ñu mën a ah, nekk waaw fii moom xeeñ ci tànk yu sëriñ bi rek moo ñu fi indi ndax suñu son suñu soñoon fépp foo xam ne nee nañ ku baax ki jaar na fa eh, mënuñoo ya dem fépp waaye fañ ci mën a dem rek ñu defa dem ma am kóllëre bu yàgg nag boo xam dox na ci diggante borom dëkk bi ak euh, ki nga xam ne moom lañu yaakaar ñun ñëpp mu Serigne Touba kóllëre googu nag bokk nañ ci li ñu findi ñu koy di ko jokk ci njaboot gi gi fi ne ak mboole mu mbokki taalibe yëpp waaw Serigne Abdou Khadre amaat fi geneen kóllëre goo xam ne moom it bokk na ci li ñu jokk si waaw ndax euh, bis bi yaakaar naa bépp murit fu mu mën a nekk rek am na yéene teew ci bis bi mm-hmm. euh, teewaayu murit yooyu yëpp nag moo ñu fi indi moo tax ñu jóge Touba ñëwoon siyaare ji sëñ Zahid ak sëñ Lay ak sëñ Yéri nga xam ne ñoo fi nekk ak mboolem ñu fi nekk rek ci mag ñi nga ci barab di ñaan ci barkeb sëñ Touba ak sëñ Abdou Khadir suñ borom euh, dolli leen tawféex ak yërmande fañ ne ak euh, ak i leer te ñu fi bàyyi yàlla dimbali leen bañ xentu seen mbuur ba yéene ji ñu amoon ci liggéeyal sëñ Touba ñoom ñu mat ko ndax yaakaar naa euh, ñu amoon ram ràññi ko lañ ci sëriñ bi loolu nag ñi fi bàyyi ñi fi ne ñoo war a suuxal jëmbat ko loolu waral suñu maanaam daja des mooy euh, sëriñ bi it dafa defoon ñaanoon euh, daa bokk ci ay mayam bisam yëpp euh, day mel set fet bisam yooyu nag bis yi ci la bokk ndax damay faral di wax ne koo xam ne la fépp fu mu jaar nañ fu mu ne la na fa soo ko demee ak màggal la fépp foo xam ne nañ ne julli na fa soo ko demee jàkkale doon kon loolu tawfeex ak may yi suñ suñ borom defal suñ Tuubaa mu mu jagoo ko ci la bokk bis bi ca bis yooyu la bok kon kep ku fi ñew rek mel na ni serigne bi nga fi fek ndax serigne bi mom lañ fi dakk ci ñu ngi ñaan yag yàgg fee ñëw euh, yag fi fek mbok tal bi fi ne te kep ku fi tew ci bis bi suñu borom euh, defal la tawfiq jéggal la say bakkar defal la say bëgg-bëgg ci serigne bi ak li nga bëgg lepp ci aduna suñu borom defal la ko waaye ñaari collègue yooyu daan moo ñu findi ma and ak sëñ Mourtala moom suñ moo dog xaajir sama mak ak serigne Saliou Mbacke moom suñu am euh monsieur Abdoulaye moom lay andal ñofi fi ci siyaare si ñaan siyaare bi eh, di ci fasaali mbokki tali bi yëpp nag am mbokki julli ñi fu mën a nekk ci àdduna bi ñu bëggoon a ñëw ñu ko ñi nga xam ne jotu woon a xam cosaanal bis ak barab bi ñaan ëllëg képp ku ko mën rek nga di ndax barab la ci barab yi Serigne Touba yi yal yàlla taafeexal ñëpp eh, suturaal ñëpp ci barke Serigne Abdou Khadir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu julli ci yonent bi di ñaanal sunu waajur yi fi tëdd yal yàlla yokk seen leer taamu seen barke barke maam lay loo ak maam Sayid loo ma ne sama yaay bi ñu wàcc dëkk maam Sayid loo lañ ko dénkoon kon noo am rek sërif la lu nu am rek sërif la noo ngi ñaan ci yàlla nag téye ko déwén fekk yàlla sàmm sàmm njaboot defal leen saadatu daayira yi yal na nu yàlla defal tiijaan ci sërif tiijaan yaan fi rek murit yaan ñu rot murit yooyu eh, armeere murit ya amul ci sërif ñëpp benn lañ ñëpp benn lañ góor ñi jigéen ñi ñëpp benn lañ mu murid ay tijaani yaa nga fa bu tijaani ay murid yaa nga fa la suñ Sidi Muxtaar dégg woon daal fekk na ci waa Serif la kon noonu ñaan ci yàlla yàlla nañ ko téye ay déwénu déwén te rafetu fekk yàlla sàmm ñu ñu mën a am xéwal fi indi di teral suñuy bokk ci daraja Rasulullah sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp suñu waajur ñu fi tëj ñoo ngi leen di ñaanal su sedd guy li ñu taamu ci Serif loolu bañ tëral leen fi yàlla nañ ko gis ci barke jërëjëf sant nañu yàlla bu baax ma jóg feedali tuuba kuk cant man ku far dog bu say kem farul sant kay ma man ku far farul sant kay gërëm yàlla ak sant bamba ma war amul kenn koo xam ni ñeenaa ko tey